salaamaaleykum mbokki internet Sénégal euh, ñu ngi waat tey fii ci euh, daje di waxtaan ak euh, imam Serigne Cheikh Sall bi nga xam te ni dafa bàyyee ko fële ci Touba ñu fas yéene waxtaanee daje bi nga xam te ni moo amoon ci 1946 fële ca Tasset di di woon bisub 17 avril mu nekkoon daje boo xam te ni Serigne Cheikh Saliou daje woon na ko ak Cheikh Béthio Thioune tey jii nag ñu bëggoon waxtaan ak moom ci li nga xam te ni ay point la yu dox ci daje boobu euh, sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. Euh, alhamdulilah wa salaatu wa salaam ala man la nabiya baada euh, gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sa mbokki techniciens yi yëpp di nuyu waa Sénégal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci télévision bi nga xam ne mooy Sénégal di rafetlu taxawaay bi ak liggéey bi nga xam ne. Euh, Sénégal mi ngi koy def ci biir réew mi. jërëjëf Sall euh, ñu tàmbale ci laaj bi wax euh, daje bi nga xam te ni sëñ Saliou Mbacké daje woon na ko ak Cheikh Béthio Thioune lan moo nekkoon solos ndaje bi. Mhm. jërëjëf Cheikh bi mm, mu mel ni bis bu am solo nga tudd bis bu màgg bis bu tedd te mooy 17 avril 1946 fële ca Tasset. mu nekk ci mbuur euh, daje boobu mun naa la wax ne ci la lépp bàyyi ko ndax jamono bi daje bi di am euh, cheikh bi mi ngi am euh, juróom-ñaari jàpp juróom-ñett ci shaayir sëri saalihu mbàkke yor watiir bi romb ko ñu nekk ci tool yi di rócc bi sëri sëriñ saalihu mbàkke rombee ci tool yi ñu daal di daw da ngay gis image yi langa ci watiir bi sëriñ bi wàcc wax ak ñoom euh, laaj leen seeni tur waxtaan ak ñoom ba yàlla dogal euh, sëriñ Saliou Mbacke jël seex bi ci jamono jooju euh, boole ko ci njaboot gi defal ko li ñuy tuddee ñaanu xaas ndax xale bu am juróom-ñaari jàpp juróom-ñetti nga daje ak moom def ci moom Euh, mbir moo xam ne euh, ni ko sëriñ Saliou Mbacké daan waxee rek ne ko li ma def ci yow yàlla rek moo ko moo ko xam euh, loola nag tey moo jur cantaakun moo jur tey jëf ji nga gis cheikh bi def ko ci àdduna bi def ko ci yoonu murit def ko ci li nga xam ne mooy liggéeyal sëriñ Touba daje googu nag mu nekkoon tu tànk ci saahir te jamono boobu daje bi di am Euh, fekk na fa bi Serigne Saliou Mbacke wootee euh, fekk na fa ay mag ay mag ñoo xam ne euh, mat nañ ko ay jur mat nañ ko ay maam waaye ñoom ñëpp bi ñu toogee Serigne Saliou Mbacke di xeli kafe ak ataaya bi mu xeelee dafa jëli ñëpp jox ko ki nga xam ne mooy seex bi mu naan bi mu noppee mu doog a joxaan yi ciy des loolu kon ab junj la te jamono boobu juróom-ñaari at jàpp juróom-ñetti at la seex bi am ci foofu nga xam ne mooy tasat Mm, ca eh, Mbuur wala nga ne Thiès eh, loolu daal moo jur eh, bis ni tey bis boobu saa yu dellusee muy 17 avril boobu seex bi di ko màggal ndax lépp lu am ci Serigne Touba lépp lu mu am ci yoonu murit ci bis boobu la bàyyi ko mu di ko dundal di ko màggal di ko def bis bu mucc ayib waaw ñu seetlu ne euh, boobu mu nekk euh, bés boo xam te ni vraiment cheikh bi fonkoon na ko trop trop mm. lu mu amoon ginnaaw màggal euh, maam borom Tuubaa bi bés boobu moo ko gënaloon. Mm. mu doon ko def bés bu rëy rëy rëy rëy. Mm. beneen bi mooy da ngeen ko daan di feete chaque année le 17 avril. Mm-hmm. ren ba lan mooy wute bi ci kii bi lan mooy la la la ban particularité ngeen am ci feetu ren bi le 17 avril bii di ñëw. Mm-hmm. waaw bés bi. da daa nekk bis bu bu mucc ayib ndax eh, ku ne xam ne 17 avril bu ma masaan ñëw Sénégal day yëngu àdduna bi ñëpp danañ xam ne eh, cheikh bi moo xewle mooy fàttaliku bis bi nga xam ne ci dal daje woon ak jàmm aram ja eh, sëriñam ba yaakaaram ja muy sëriñ Saalihu Mbàkke ren nag ñu koy waajal mu nekk daaw gis nañ Sénégal ngeen couvrir li nga xam ne mooy événement bi ci taxawaay bu mucc ayib taxawaay bu am solo ci liggéey bi Euh, li ca ëpp solo bokk na ci wàcc ay kaamili alquran jàng li nga xam ne mooy ay junniy junniy kaamil des na ko jàng ndax kaamil yi du yem ci mbuur kese mais fu daara alquran nekk tey soxna si dina jéem a jokk ak yow nga wàcc ay kaamil ci ab lim boole kook li nga xam ne ñoo nekk mbuur ndax dina ñëw ci mbiru daara yooyu alxuraan boobu bu ñu wàccee kaamil yooyu jàng li nga xam ne mooy xasida Serigne Touba yi ay junni junni xasida ndax xam nga soxna si moom gis ngeen ko ni mu ni mu ni mu maîtriser alxuraan ak ni mu maîtriser xasida Serigne Touba yi ci mokkal gi ak ci ni mu ko jàngee te du ko xool noonu nag ci la yaree xale yëpp soxna si ni mu ko manee noonu la ko soxna yëpp manee parce que cheikh bi moo leen yar waaye moo leen ko jàngal euh, xale yi dañ leen a tarbiya jàngal leen alxuraan dañuy jàng lépp lu ñu war a jàng ci xam-xam ci sharia ci diine ba pare jàng xasida xasida yi gën a jafe tey ci xasida Serigne tubaay yi boo ñëwee xale bu am 7 ans 9 ans 10 ans dala koy taril ci xasida Serigne tubaay yooyu bu ñu jugee ci xasida yooyu boole ko ay waxtaan ay lislaam diine fàttaliku li nga xam ne mooy lépp rek lu jëm ci wàllu shariatul islamiya waaye lépp lu jëm ci tarixatul muridiya lépp lu jëm ci nag seen jàmbaar ji muy diggante relation Serigne Saliou Mbacké ak yi nga xam ne mooy Serigne Cheikh Béthio Thioune yooyu den ko fa yendoo waxtaane fanaane koo waxtaane fanaane cant boole ko buñ ne cant ne bernde yaakaar naa daaw ya gis nga bernde yu mucc ayib yooyu fa amoon def bernde yu am solo yoo xam ne loo xalaat ndax gis nga ko ci semaine bii rek soxna si eh, nag yi ak giléem yi ak xar yi nga xam ne ñooy bàyyikoo fii ba Mali ba Mauritanie lépp agsi na loolu lépp nag boo ko doon xayma ci xaalis minimum dana dem ci ay milliards soxna si fas yéene def lu mel noonu li seex bi daan def benn da koy yóbbu ba fukk kon kooku dafa yokk moo tax nga gis ne lu seex bi doon liggéey rek soxna si yokk na loola loolu nag ak njàmbaram moo ko ko may ak ndimbalul suñu borom. waa ñu gis ne moom moom soxna Aida dafa impliqué wu carrément ci ci wutum teraanga ci wutum euh, euh, xar yéeg nag yeeg ginaar yi da ci da ci da ci dugal loxoom. day takk day takk ndiggam dugg ci biir àll bi di wut euh, gàtt yooyu nga xam te ni pour bernde yi la comme ni nga ko waxee rek ku wax cantaakun wax bernde. Mm. léegi lan mu nekk diggante Cheikh Aida ak cantaakun yi. Mm-hmm. Euh, depuis bi Cheikh bi euh, dëddoo ba léegi gis nañ ni am na yenn complicité yi am ci seen biir quoi. Mhm. waaw euh, soxna si Cheikh bi daf ko daf ko gërëm daf ko tarbiya xam nga dañuy wax ne yoonu murit ñaq jariñu la ku ci bëgg a jariñu da ngay ñaq doomu aadama lu mu jëf rek loolu lañ koy fay man jaa bil hasanati falahu asru am saaliha loolu alxuraan moo ko wax boo defee benn bu rafet yàlla da koy ful ba muy fukk ful ko ba muy juróom-ñaar téeméer ful ba muy ay junni junni euh, soxna si dafa tarbiye bi muy xale euh, liggéey yàgg liggéey ku ne tarbiye mooy nga nekk ci daara ji nekk ci kër gi rek di liggéey booba yàlla euh, mook so sëriñ bi nekkaguñ ba yàlla dogal sëriñ bi yàlla dogal mi dogal ñu ànd ñaar mu fekk ko ci tarbiye liggéey boobu la jël ci nangu gu mu nangu ak takkoon laxasaay ak joxe boppam xam nga soxna si booy gis dañ naan nit bul ko seen mu toog rek nga jàpp ni li mu yor tey la ko am gis nga dakaar gii soxna si fi dafa daan yenoo ay bool ba Mermoz yenu ay bool yu fees dell ak i di dox ak tànkam dugg taxi ba Mermoz fii ñu baree bari tey boo leen waxoon doxeel Dakar gi ba Mermoz yanu bool bu diis gann boo xam ne eh, la ca nekk maara day taali du xalaatuñ ko dañ naan la taxi ba leneen ba duñ ko def loolu bokk na ci tarbiya soxna si soxna si nekk na Touba. nekk na tuubaa di liggéey ci daara ji di fóotal ndongo yi di bale kër gi ak ëtt bi ak li nga xam ne mooy penc mi di togg ca waay wa lii lépp soxna si def ko lu mu néew ne ay at ci Touba te booba dara xewagul kon boo ko séenee tey jàppal ni kii kat lu ko topp da koo liggéey loolu lépp nag ba muy am fekk na dara xewagut mook sox mook seex bi nekkaguñ ginnaaw bi ñu nekkee nag soxna si taxaw doon ab Baay Faal gëm Serigne Touba di ko liggéeyal suba ak ngoon guddeeg bëccëg di ca soññu taalibe yi ba ñëpp d'accord ci ne kii kat Pastef moom yaakaar naa kenn jiituwu ko ci. ak li nga xam ne mooy engagement ak détermination loolu moo waral tey eh, ginnaaw bi cheikh bi delloo. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu maase nekk benn. cheikh bi nag moo ko ko digaloon ndax Serigne Serigne Serigne Saliou Mbacké moo wax ne Serigne seex Béthio moo ne soxna si dama jël ay milliards jox ko ko. ne ko demal Mali nga jëndal ñu li nga xam ne mooy nag nagi màggal mu dem seex bi nee na mu def ko lu kawe sama njort ndax ku jël ay milliards teg ko ci loxo nit mu ñëw def lu kawe njort kooku jàmbaar la ci soxna ba mu jugee ci loolu seex bi ne damaa xam ak xam dinaa ko jox gëddaam ba mu mët sëkk dina ànd ak moom ba jébal ko Serigne Touba ndax daa bokk ci ñi nga xam ne Serigne Touba ma ko fayee ci la waxee woon ne mooy man may moom. Mm-hmm. jàpp ci moom mooy dëgg-dëgg jàpp ci man ku ko def tey noppal ma euh, ku ko def noppal ma tey ëllëg. jël mission bi teg ko ci loxoom mu di ko doxal loolu nag bu baax da jàpp rek ne euh, euh, nit euh, alxuraan dafay wax ne fa xalafa min bahrim xalfun addaxu salaat wa tabaxu saxawaat waaye mu ne fa saw fa yàlla xaw na xëyyaa alxuraan day leeral ci ndono ne bu fekkente ne kii la bàyyee ndono dala kaa bàyyee nga doxal na nga ko waree suñ borom dimbale la mu ci misaal ñoo xam ne yàlla dañoo wuutu woon ña ñu donn woon waaye bañ leen donnee dañoo jël saahir ba ak baatin ba salfaañ ko sànni ko ci àll ba xam nga bëri waa ne ku ndonnu nit la nga yoroon rëcc la daa fekk liggéeyoo ko wala mérito woo ko waaye bi seex bi wanee ginnaaw ak léegi 2019 lee mu yàgg mi ngi liggéey te jamono bu nekk liggéey bi mi ngi gën di yokk gërëm gi mu ko gërëm nag yonent bi sallallahu alayhi moo waxoon ne jigéen caabi aljanna mi ngi nekk ci borom këram sa borom këram bu la gërëmee sa aljanna leer na buntu boo fëgg mu béeku moo tax soxna yi soxna bu mën a doon ci àdduna bu fekkente ne rek bëgg ngaa àgg ci suñ borom bëgg ngaa nga àgg ci yàlla bëgg nga bunt boo fëgg suñ borom ubbi la ko jaamul sa borom kër ba mu gërëm la soxna si nag ci lii la jaar ba seex bi gërëm ko jël lépp teg ko ci loxoom mu toog ci fauteuil bi fees ci del di ko liggéeyal ci saayir di ko liggéeyal ci baatin gëm Serigne Touba ba yemaliwu ko kenn doon Baye Fall gëm Maam Ibrahima Fall waaye gëm lislaam ak diine di ko liggéeyal lii daal bokk na ci li gën a tax tey mbooloo mi ak taalibe yi topp. Euh, loolu moo tax mboolee ak taalibe yi topp ko léegi ñu wax li nga xam te nii mooy euh, dox diggante euh, Soxna ayda ak Touba su ma ne Soxna Aida ak Touba nag mooy Soxna Aida ak xalifa bi seen diggante jamono yooyu ci ginnaaw gisoon na nu mu meloon mu xawoon a ñagas ëmb léegi nag tey ji diggante bi lu ci am. Mm-hmm. waaw xam nga li ma mën a wax rek foofu mooy buñ nee Soxna Aida Saliou Thioune li ñu njëkk a gis ci moom mooy ak taalibe ak murit sadix gëm sëriñ Touba di ko liggéeyal ci ak murit ci ni ñu diglee ak murit mu di ko doxalee adduna nag day dox te léeg-léeg euh, réeroo am ci diggante. ci ni ñu digloo ci ni ñuy diglee ak murit mu di ko doxalee mooy murit ndigg waaw murit ndigal ndax moom musul jëfe lenn lu dul lu luñ ko digal mu def lu luñ ko teree mu bàyyi. soxna si musul wàcc ndigal ci kaw suuf ba mu nekkee xale ba tey ndigal lay jëfe tey ndigal loolu moo ko indi fii tey euh, ci li nga laaj nag diggam ak Tuubaa jàmm rek moo fi nekk bi ci njëkk mooy bi fi seex bi nekkee xam nga dafa ubbi woon ay waañ Tuubaa maanaam ci màggal màggal màggal gi 1991 il faut ma delluwaat ci taarix mm-hmm. xam nga xel koom li ci ëppoon Serigne Saliou Mbacke seex bi la ko daan jox muy góob ak naaf ak dajale lépp mu dajale taalibe yëpp yóbbu leen fële fa nga mooy xel koom ñu ñu tarbiyee ñu liggéey foofu. soxna si ci xel koom kenn mësu ko ci man ay weer dañ ko daan def foofu Serigne Saliou Mbacke wax 1991 wax seex bi ne ko dama bëgg màggal Touba nga fonkal ma ko fonkal ma gàmm gi. fonkal ma xasida yi fonkal ma bernde fonkal ma li nga xam ne mooy ak yeneen ak waaye lii moo ci ëpp 17 avril bi doo a ñëw seex bi ne kon màggalu Tuubaa gi il faut am ci beneen taxawaay seex euh, bi daal di fexe ba quartier bu ne mu créé fa ay waañ indi li nga xam ne mooy ay nag teg fa teraanga ji nga xam ne tey boo yow boo ñëwoon Tuubaa tey mun ngaa dem màggal màggal gi dàq ci màggal yi te doo ci génn kër. Hmm. ndax quartier bu nekk rek dañ ne nañ fi ubbi ay waañ teg fa li nga xam ne mooy ay nag ak teraanga jëfa jëm loolu boo ko dajalee ay milliards la mu nekk xalaat boo xam ne nag xalaat bu am solo la. ci wàllu économique waaye xalaat bu am solo la ci wàllu doxal ak liggéey seex bi def loolu ba loolu jeex sëriñ Saliou sant ko ca gërëm ko ca gërëm ku ca xamal ko ni ko nag dinaa leen ñaanal mucc ba faw yow ak koo àndal dinaa leen ñaanal njariñ lu yaatu lépp seen lépp njariñ lay doon man sëriñ Saliou Mbacke dinaa leen ñaanal yokkute seen lépp day yokk ba faw dinaa leen ñaanal man sëriñ Saliou Mbacke barkeel seex bi ak koo àndal sa lépp ay barkeel dinaa leen ñaanal bari le lépp loo bëgg ak loo xalaat ak loo yéene rek suñ borom daan la ko jox ba nga doyal ko ci loolu moo waral tey da ngay xool nag yi mu jaaxal la nga ne lii fu mu bàyyi ko booy xool danga nga lii fan la bàyyi ko moo tax Sénégal xam nga Sénégal day banqué ay nag soxna si bañ na ko ba léegi Mali lay jëndee ak Mauritanie loolu laa waxoon ne suñu réew mi war nañu delluwaat ci yarum jur ndax bu ñu demee ba tabaski bi jotee ñun dañuy jéggaani ay ay ay xaral ak i nag loolu war nañu xoolaat bopp loole doon am tuubaa ca màggal ga ba tey jii soxna si mi ngi def lu ko raw màggal gi lu mu néew néew dana génne ñaari milliards la ca ëpp ci teraanga yi nga xam ne dañ koy màggalee tuubaa la jëm muy nag yi muy xari muy bernde yi kon xam nga foofu moom jàmb rek moo fa nekk beneen bi mooy euh, alxuraan dane ya in jaakum faasiqun bi naba in fa tabayyanu yàlla mooy wax de mu ne buñ la indilee sëñ ilima almaami almalik sekk buñ la indilee ab xibaar nee na na ko saytu ba mu leer nañ ngeen doog ko siiwal waaye bu bu xibaar ñëw rek ngeen yaatal ko wala loo dëgg ci say nopp rek nga gëm ko moo tax ma ne la amoon na ay jamono yëngu-yëngu amoon na ay wax jaaroon na fi waaye loolu lépp jeex na tey ñamu séqaloon teraanga ak kóllëre tey la ko gën a séq ak ñoom ña mu seqaloon Serigne Touba ak ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Mbacke tey la ko gën a seq ak ñoom Touba Mbacke ba léegi nii dafay dem ku fa xewle soxna si dafay dem. ñu de am na ay quelque ay dëkk yoo xam ne am na ci biir Touba mu sol dàllam jigéen bu mbuur dem foofu. ku fa am itam xew boo xam ne fekk na ko ci senegal dana sol dàllam dem bu dee xewu bànneex la mu ànd kook yow bu dee xewu naqar la mu ànd kook yow du caagee ne nag euh, dem ak Touba yëpp la ñuy jël di ko médiatiser mais nii nii ba nii nii nii ku xew la Touba xewu jàmm te mu xam la day sol dàllam ñëw ndax dafa am yitte ci nit ñi bu dee beneen xew itam kasaalik mu sol dàllam ñëw am fa kër nag am kër tuubaa te tuubaa ku fa am kër fa nga dëkk looloo tax ma ne la euh, diggam ak tuubaa boo demee ci 17 avril bi waa Touba yaa fa ëpp tey Touba gépp ay kaar ak ay biis la ñuy dugg pour ñëw 17 avril feete ko ànd ak ak moom bu gàmm gi jotee itam xëy na gàmm moom dafa yaatu waaye du tee itam ay délégation yu du jeex ñooy bàyyi ko Touba ñëw Mbuur ànd ko moom ci liggéey boobu. kon daal diggante euh, tuuba maanaam le xalif général di Touba de des Mourides ak Cheikh euh, ak Cheikh Aïda euh, xëy na réeroo ya fa amoon macha allah suñu borom faxas na ko ba euh, Cheikh soxna Aïda doon taalibe Murit. di wéy ci ay ndigal li nga xam te ni moo bàyyeekoo ca xalif bi. sant yàlla beneen bi tam mu nekk ni relation toujours bu bu am ci diggante soxna ayda ak politiciens yi parce yi moom mbooloo la ñu bañ a gis te Cheikh Adé dafa yor mbooloo. Mm-hmm. waaw bi ci njëkk mooy euh, soxna Aïda Saliou Thioune moom euh, politique gut moom ci alxuraan lay dox ak sunna yonent bi alayhi ak li nga xam ne mooy tegu ci yoonu murit li sëriñ Touba jàngale ñu tegu ca yoon woowa alxuraan ak xasiida yi alxuraan ak bernde alxuraan ak sunna daara ja ak xale yi ak toppatoo li nga xam ne mooy daara yi ak néew ji doole yi ak social ak dimbale soxna si daal activités yi lii moo ëpp njariñ ci àdduna te lii ci lay jox lan tanaalul birra hattaa tunfiqu ay tuhibbuun yàlla def ci alxuraan ne du ngeen am lu baax lu dul ne da ngeen a jël li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko moom nag li gën a soxla lay joxe euh, El nga jël ay milliards jëndee ko ay teraanga joxe ko ba mu jeex takk nga raxasu jóg dem loolu yombul ci àdduna bi nañu waxtaan ci suñu biir màkkatul mu karama boo demoon aji tey say riyaal bu jeexee amul kenn ku lay dimbale li nga yóbbu bu xasee jeex tumuranke dikkal na la coono dikkal na la jafe-jafe dikkal na la kenn ku lay jox ñaar fukk yoo añee baa réeree déedéet takk sab saak ñibbi rek moo ci des moo tax toujours ñu naan ku say riyaal jeex say ree jeex <laughs> ndax da nga xam ne <laughs> jafe-jafe ñëw na. yal yóbbu ca ca ca Màkka. <laughs> amiin ba ñu si nag euh, ci taxawaay boobu moo waral tey moom xeetu politique ak lu jëm ci loolu moom da koo tegee ne moom daal fi ko sëriñam bi tegoon te mooy tegu ci siraatal mustaqim ak liggéeyal sëriñ tubaa loolu ci la nekk. dëgg la nag ñi ngi wax politiciens yi moom fu ñu seen mbooloo dem fa. waaye teewul moom mi ngi tegu ci rek liñ ko tegoon. waa yëngu-yëngu jamono yi manifestation yeeg nangam nangam yooyu bu amee duñ ci dégg euh, soxna si mu wax et pourtant am na mbooloo moo xam ni ñàkkul ni xëy na ci ay njabootam lañu waaye tam ñu ngi bokk ci manifestation yi. waaw waaw xam nga euh, sëñ Cheikh Béthio Thioune moom la yàlla dimbali woon ba koor boo jël ci Sénégal rek da nga fa fekk ay taalibeem parce que li njëkk ci ab sëriñ mooy dañuy sab taalibe da nga koy jàngal yar ko jàppale ko taalibeem yépp dañoo jàng ay cadre rek ñoo fa nekk amul taalibe buy dox ci mbedd mi wala taalibe booy seen naan kee de taalibe Cheikh Béthio Thioune la mu sol yëre yu xotteeku baa mu sol lu tilim koo ci seen cadre la koo ci seen tey diplôme bu nit war a am am na ko ci secteur yëpp nag ci Sénégal ba pare génn ci àdduna bi nag foo dem ci àdduna bi fekk fa ay taalibeem ndax daa nga ko suivre bu baax a baax buy def tournée nationale am boobu nga xam ne léegi soxna di Saliou Thioune moo koy def euh, jàngal te ni ñu jàngee tubaab jàngee ko anglais noonu lañ jàngee alxuraanul karim jàngee ko li nga xam ne mooy xasida Serigne Touba yi xoolal tey booy taxawee mbuur ñi ngay gis ñu yëkkati xasida ñëpp ñi kenn ku ci nekk fonctionnaire lañ ñii ay fonctionnaire lañ ñii ay enseignant lañ ñii ay professeur lañ koor boo mën a jël tey léegi nag yar gi mu leen yar ak nga xam ne tey boo ñëwee mbuur xoolal tey bu ñu xasee toog li li li mbooloo mi bari bari mun na laa wax ne eh, doo dégg ku yëngatu mën nañoo fanaanee toog ba bët set ba 10 heures ci bëccëg ba 11 dañ koy toog ñoom seenu cant xam nga du yem ci ay 6 heures ñu arrêté ko bu ñu cant day xëy guddi gi ba fa ba bëccëg ba 10 ba 11 ba dangay dégg soxna si ne bu ma bu ma yërëmutoon ñu toog dee dama koy enchaîner ba midi ak une heure nga xam ne moom ñëpp moo leen gën a sawar te du yëngatu fi mu nekk du raf loolu nag ab yar moo koy maye. moo tax bu dee ci suñu réew mi nag bu yëngu-yëngu amee la am solo rek mooy kenn ku ne ànd ak dal ndax lu yëngu-yëngu bi rëy ci dal rek la jëm waaye nag bu dee mbooloo mu jàng mbooloo mu civilisé mbooloo mu yaru mbooloo mu ànd ak dal mbooloo mu ne tekk kenn ëppalewu leen ko ba pare nag ànd ak dal fii ci réew mi. jërëjëf euh, imam Cheikh euh, Sall euh, beneen bi xëy na mooy question bu mujj bi mooy nekk ni depuis que xalifa bi du moins boog Cheikh Béthio dëddu àdduna naka naka la waa Mbuur wala boog waa Medinatu Salaam. wala Mbour en général di dunde ndaxte manifestation yi fa daan am mi ngi fi am ba léegi wala am na ay coppeeku coppeeku wala am na yoo xam ne amatu fa. Euh, tey la manifestation yi gën a ëpp euh, tey la cant yi gën a bari tey la cofeel gi gën a yaatu tey la yeesal gi gën a yaatu euh, xam nga seex bi dafa jëloon lu ñuy tuddee cant alxuraan moo ne la in sakkartum la asidannakum bu ngeen ma santee ma dolli leen seex bi. Euh, léppam cant la woon looloo tax dinaa delluwaat ca Serigne Saliou Mbacké xam nga euh, damay wax ne 1987 euh, cheikh bi dafa ñëw siyaare Serigne Saliou Mbacké indi ay teraangam def léppam bi mu paree Serigne Saliou bi mu jëlee kàddu daane ko seen jëf ji dee lu mu sori sori seen yéene weesu na ko mu tekki ne fu seen yéene ji àgg rek seen jëf mën na faa joti daan ne li ngeen jëf xam naa ni doy na waaye bëgg ngeen koo weesu Serigne Saliou mooy wax de daan sant naa man Serigne Saliou Mbacke ci jàpp gi ngeen ma jàpp ak déggal gi nga xam ne déggal ngeen ma ko dane euh, ndax lii sama noflaay la sant naa ci jàpp gi ngeen ma jàpp ak déggal gi ngeen ma déggal ndax loolu sama noflaay la daan maa ngi leen di ñaanal nag ñaan gi Serigne Touba ñaanoon ci addiya njariñ yépp Serigne Touba ñaanoon ko ci addiya mu ne yàlla na ko yàlla na ko yàlla jël def ko ab taw ci seen kaw moom Serigne Saliou Mbacke moo wax loolu 1998 ci la cheikh bi foofu loolu ci njaareem la loolu moom dañ ko fekkee 98 boobu boobu ñu ñu fekk ñuy jàng sëñ Saliou Mbacke toog seex bi toog ñu gisu ak taalibe yi bi sëñ Saliou bi seex bi santee ba pare sëñ Saliou Mbacke ne mu ne ko li yàlla wax ci alxuraan ne la in sakkatum la azidannakum bu ngeen ma santee ma dool leen seen cant yi ngeen di def yàlla na jël cant yooyu mu yéegale ko ci li nga xam ne mooy cant yooyee mooy cant yi nga xam ne mooy cant yoon yónnent yi euh, am na itam beneen muy 99 sëñ Saliou Mbacke wax na ne ko boobu la ko doon liggéeyloo xel xelkoom yi sànc yi bi mu ko joxee caabi yi ba pare mu ne ko seen jëf ji dafa bokk ci jëf ji gën a rëy bokk ci jëf ji nga xam ne moo gën a màgg bokk ci jëf ji nga xam ne tey damay wax ne yéen am ngeen ngërëmu Sëriñ Tuuba daan tey nag ñaanal leen ba pare daan ne da ngeen di tàllal ma defal leen li ñu tuddee ñaanu xaas lii siñ Saliou Mbacke moo ko def daan ne am ngeen ngërëmu Sëriñ Tuuba te itam fu ngeen jëm rek buntu yooyu yàlla dina leen ko ubbil daal di leen defal li nga xam ne mooy ñaanu xaas 2003 màggal googu nag ci nga gis sëñ Saliou du xelli café gi di ko jox seex bi di ko fàttalin xam nga moo daan reeloo sëñ Saliou Mbacke di ko jox café gi ba pare sëñ Saliou di jël ay wëlis yéreem di ko jox loolu la ko doon naan ko euh, damaa def ci yow loo xam ne yàlla rek ko xam moo tax comme nam ko ko waxee woon ne ko say mbir day yokk ba faaw say mbir day barkeel say mbir day bari say mbir day yaatu seex bi di ko fàttali daan ne ko ba ma àndee yow yàgg na ca at yooyee daal ni ko 17 avril 1946 la àndoon a yow ca taset ci tund ko xabbaan wa ca saa toolu baay ba ca wetu mbul ga ca euh, maanaam di ko fàttali jamono yi kii Serigne Saliou Mbacké di reetaan nee na mu ne ko maa yow na boobaak léegi dafa yàq ni ma la bu buñ doon ku ku ñuy xam la man maa la maa la maa ki la xam seex bi xamal Serigne Saliou Mbacké ne ko nag damaa ànd ak ay ndaw nga def ci ñoom ak sot ak bëgg ak dégg ndigal ma bëgg nag sama dëkk bee di mbuur manqué wul dara ndax xam nga mbuur bi ñu ko sañceeg léegi yàggul waaye tey teraanga ne am na fa bëri na dëkk yoo xam ne ba ñu ko sañceeg léegi man na cinquante soixante-dix ans tey mbuur roppi na leen muy madinatu salaam di kër sàmba xéewal yaa ngi fa teraanga yaa fa ba ko seex bi wax naa leen péage bi dina jaar fii booba ñoom dañoo foogoon ne day day day day day gént xoola tey péage bi ni mu waree foofu fi gën a seer tey suuf mooy kër sàmba ak li ko wër muy madinatu salaam damaa bëgg nga yokk sama ngor ba ma gën laa mën a sant man seex bi yokk sama xam-xam yokk sama cofeel gi waaye nu yokk li nga xam ne mooy sama pasteur sëñ Saliou Mbacke ne ko defal naa la ko fii la sëriñ Saliou Mbacke jaar ak seex bi muy lu tuuti waxoon naa ne la jox na ko Touba seex bi yor na Touba ay at nekk président communauté rural bi biir si communauté rurale bi mu ñëwee dañ ne 200 millions lool bi mu ñëwee yóbbu na ko milliard commencé nag teg ay ay ay programme am ci biir Touba. sëñ Saliou Mbacke sant ko ci loolu gërëm ko ci loolu moo tax ma ne dafa am ngërëm nekk modèle taxawaay bii nag mooy ci question bi nga laaj moo taxoon ma doon dellu ci loolu mooy. xew-xew yi nga xam ne xew-xew yi nga xam ne ñooy am mbuur euh, El Malick Seck chaque alxamis soxna si dina rey ci ay nag ab lim boo xam ne kenn xamul nu mu toll alxamis dañuy fanaanee toog bu bët set. defe naa Sénégal amagul demagul ci programme boobu alxamis laa wax 22h bu jotee taaliba yëpp ngi toog ñuy fanaanee togg ba bët set bu ñu xëyee bët 10h 11h lépp pare na sotti na ba muxtaare soxna si ñëw ñu defar lépp dajale oto yi ñu dugal ko ci xam nga fan la jëm. Hmm. fu daara nekk ci Sénégal rek da nga am ci teraanga jooju ceeb bu ñor lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak lu ñuy sol bu ñu paree ci loolu. li ñu tuddee ravitaillement buñ buñ la ko joxee dund boobu mën nga cee dund weer. mais est-ce que yooyu daan am ci jamonoy seex bi. seex bi euh, ci toggaajuma yi ci soxna si la commencé mais seex bi ne moom berne la daan def ak euh, euh, ci yenn événement yi muy màggal ak gàmmu yeeg 17 avril beeg korite ak tabaski yooyu waaye ajjuma ju jot nga togg nag kooku moom soxna si moo ko indi. waaw mooy comme li nga doon wax sànq rek ne soxna si daf fekkoon li fi fi seex bi bàyyee woon mu ful ko. Mhm. bu ñu paree raison par raison la ñuy jëm ñii ngi jëm tuubaa ñii jëm Diourbel ñii jëm ba Ndar ñii jëm ba Louga ñii jëm ba kawlak ñii jëm ba Dakar ba dakaar gii nii bu ñu paree du ñem ci daara yi de mais fu hôpital nekk ñu ne ay wax fu prison nekk ñu ne ay wax semaine bi yaa ngi doon seetaan hôpital Fann teraanga yooyu soxna si ay milliards la koy coûter te yëgalu ko yaramam parce moom ñi muy jox sax xamu leen da ngay dégg xoolal xàmmewul ku ku ku ko xam ak ku ko xamul soxlawul ci tam ku ko sant baa nga koy gërëm ndax yàlla daa wax ci alxuraan ne innama nutimukum li wajhillaahi laa nuriidu minkum jasaan wala sukuur li nga may def ci lu baax soxlawuma ci yéen ngeen di ma bëgg ak gërëm baa ngeen di ma sant feneen soxlawuma ci seen fayu yàlla rek laa ci soxla moom la soxna si di def loolu nag xam nga lu ñu ci jublu maay daara yi ci Sénégal mun may seen yaay amul xiif amul mar da ngeen sol lu rafet di lekk lu neex tey loolu la taxawee mu nekk liggéey boo xam ne boo koy constaté ci àdduna bi amul ku koy def ci àdduna bi liggéey boobu teg ci noonu la ñuy leen jàngalee alxuraan noonu la ubbi na ñaari daara yu mag boo xam ne bu ci nekk mën naa jël 700 personnes ci daara alxuraan ñuy boole di jàng xasida ñu di leen yar mu ne bëggatuma gis xale buy taxawaalu ci mbuur ba kër Samba di dox na ñëpp dem jàngi alxuraan ku pare nga dem jàngi xasida bu ngeen paree alxuraan bi ñu jàngal leen ko tafsiral leen ko liggéey boobu moom la ànd ak soxna Aida Salihu Thioune euh, moom soxna Batoor Salihu Thioune ak soxna Adja Salihu Thioune ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo cantaat ko ñi sañ Touba nag dafa waxoon ne Touba li habdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw haddiyaat mu ne texe ñel ni képp koo xam ne murid sadiq nga ñu ne ko waaw mu ne mooy koo xam ne dafa may liggéeyal xidma rek ci ngay nekk ak soxna si mi ci liggéey boobu aw bi xubbin wala dag maa bëgg ci ba jeex boo demee ci soxna si bëgg sëriñ Tuubaa ba jeex yemaliwu ko kenn aw hadiyaat bu dee joxe addiyee nag moom kenn rawu ko ci ndax lii muy def ci màggal gi moom man ci màggal gi man ci gàmmu gi xoola événement yi ci Sénégal màggalu Touba ay milliards ciy dem gàmmu gi ay milliards ciy dem tabaski bu ñëwee gis ngeen ko Mali ak Mauritanie ñu dajaleen xar yépp séddale ko ci Sénégal bu gàmmu gi ñëwee kazalika bu 17 avril bi ñëwee nag mu defaat ci ay milliards lii nga xam ne minimum at bi danga am juróomi événement yoo xam ne ay milliards a ciy dem te bokkut ak cant yi ngay defaat par alxamis ak ajjuma liggéey bi amut liggéey bu ko ëpp solo ci li nga xam ne mooy lislaam ak diine ak yoonu murit euh, jërëjëf euh, imaam euh, Cheikh imaam Serigne Cheikh Sall Euh, di islamologue euh, bàyyee ko fële ca Touba doon doon waxtaanee tey jii ci daje bi nga xam te ne moo amoon le 19 avril 1946 fële ca Tasset ca Mbour ci diggante sëñ Saliou Mbacké ak euh, Cheikh Béthio Thioune kon daal rendez-vous bi mooy nekk le le 17 avril. beneen bi tam mooy ñu ñu ñu lay jox yóbbante di wax soxna si. Mm. daara yi nga xam te ni mu ngi fay yóbbu ay bernde dafa yóbbu ay colin euh, bu fekkee ne te mën na teg ay jéego di xool xale yooyu effectivement ndaxte colin yooyu mi ngi ci ñoom ak yooyu parce que euh, léeg nga dox ci mbedd Ndakaar yi gis yenn xeetu colin yoo xam ne ni xale yi euh, maanaam da des na daal de njaw des na xambin ci ci ci wet googu la. Ah, ci taalibe waaw ci taalibe yi loolu dañu leen dañ leen koy yóbbante. Mhm. pour que comme que mi nee na mooy yaay taalibe yi. Mhm. muy muy muy muy mu bañ a yem ci yóbbante rek. Mhm. waaye muy dugg ci daaya ci daara yi. maanaam ñëw ñëwu mbetteel. di xool xale yi naka la ñuy toogee ak naka la ñuy soloog yooyu ak seen wér gu yaram. jërëjëf Cheikh bi euh, ñu jox waaw bisimilah ñu. Euh, liñ bëggoon tëjee mooy. Euh, Cheikh Ibrahima Diouf Al Massirou dafa wax ne. Euh, fa maa yaxdumu cheyqu ila shahid ani naar wal mubiqaat bahit nee na képp ku jóg di liggéeyal sëriñ Touba nee na lépp luy niroog taq ak tilim loolu dana la sori daane busraali kulli muridin sàlla mujtahida fii xidmati cheyqi man faasat bii soxda mbégte ñeel na képp koo xam ne dangaa jóg di liggéeyal sëriñ Touba fattiku ba dëgër nee na kooku texe na àdduna waaye texe na li nga xam ne mooy alaxira euh, yonent bi alayhi salaatu salaam ne man man asbax laa yaxtam bi umuril muslimin fa laysa minhum mu ne boo nee jullit nga ak ku man di doon ci àdduna te nee na mbiru jullit yu teelu la neena bokkoo ci sama xet soxna si min ci loolu suba ngoon gu dégg bëccëg sëñ Tuubaa wax ci nax ju ne faat lafal am waale bi infaax bilaa riyaa innaas wa nifaax saxaaba yi dañoo jëloon seen doole ak seen alal ak seen xam-xam lépp def ko ci yoonu yàlla moom itam mu jël xam ak dooleem ak alalam def ko ci li nga xam ne mooy yoonu yàlla suñ yonente bi alayhi salaatu salaam ne la in yahdiyaka allahu bika rajulan xayrun laka min ad-dunya wa ma mu ni nga jël benn xale benn nit orienté ko jàngal ko yar ko teg ko ci yoon ba mu jub nee na moo gën àdduna ak li nga xam ne moo nekk ci biiram suñ tubaay wax ne wax ji hawaaiji lazina daamu fi xidmati wa hablahum maaraamu yow yàlla na nga fay képp koo xamante ne bii dafa jóg di ma liggéeyal lépp lu mu bëgg baa mu yéene ko rek yow yàlla na nga ko fajal li nga xam ne mooy ay ajoom liggéey boobu ci la soxna si nekk muy ku sell bëgg lu baax bañ lu bon wëlbatu ko yéene ñëpp jàmm am xol bu rafet xàmmeewul ku ko bëgg ak ku ko bañ wëlbatu ko am taxawaay bu mat sëkk ci ni ko seex bi digalee woon ne ko ay wa doxal danga gis lu gën a xonq tubaab mooy da nga gis attaque bu ne da nga gis jafe-jafe bu nekk waaye doxal ne ne ci soxna si laay jommalee waa àdduna Serigne tuubaay itam ni ko Serigne Saliou Mbacke waxee woon ne ko li fi say mbir yoonu murit a ngi dox say mbir day dox li fi ak yoonu murit a ngi dox mbirum Seex Béthio Thioune di dox ndax da koo liggéey ci yoonu murit liggéeyal ko Serigne Touba ba pare nekkoon kenn ci àdduna bi nekkoon kenn ci yoonu murit nekkoon kenn ci Sénégal xam nga maa ngi bëggoon wax sax la seex bi mooy ki njëkk a organisé fête indépendance 1977 fële ca Njaareem ci teewaayu kilifa yi nekk ci Sénégal yëpp ak teewaayu président Léopold Sédar Senghor kon kooku yaakaar naa kenn la ci réew mi ku ñëpp war a delloo njukkal la réew mépp ko war a delloo njukkal ndax bay na waaram jàngale na yar na dimbale na taxawu na nit ñi kon ñi fi bàyyi ñoo war a doxal kon soxna Aïda Saliou Thioune ci fauteuil boobu la toog di liggéey te boolewu ci ak wax ñu koy ñaanal yàlla mu ànd ko soxna Batoor Saliou Thioune ak soxna Adja Saliou Thioune ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo cantakun yi kon ñu koy ñaanal yàlla mu kattanal ko dëgëral ko ba lu man ren bu déwénee rek mu def li nga xam ne moom moo koy ëpp doole kon El sekk Seck ñu ngi lay nuyu baax di leen sant di gërëm waa Sénégal di gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñoo jàpp ci liggéey bi ba yëf yi yomb. jërëjëf imaam euh, Serigne Cheikh Sall euh, ñu ngi lay sant di la gërëm di joxe xam naa dig daje le 17 avril. ca euh, Mbour. incha allah.